yëglekaay yi li ñu xëy tey jile ci talaata gi Chérif ñu tàmbali ak l'observateur ñëw ci jël bi Sénégal daanu démb ca Qatar jëm kon ci premier match am coupe du monde ñoom ak pays ba on doit dans l'œil firndeel ki nag ak ki nga xamante ni kon mooy défenseur bi di Pape Abdou Cissé am na nag débrief di jàngat boo xamante ni Henri Camara Pape Fall ak Malick Diakhaté ñoom ñëpp ñu nekkoon ay anciens internationaux équipe nationale bu Sénégal kii di Edouard Mendy moom mooy gardien bi mën nañoo jàpp ni un mur troué la ko tuddee maanaam rek ab tamit boo xamante ni doon na seen Kalidou Koulibaly Pape Abdou Cissé ñoom nag ay impair d'un duo ndax gis nañ fa quand même ay yoo xamante ni fa la jaar ba dugg Krépin Diatta moom couloir bi gis nga ko daanaka taxawaayam ba na mu waree amul mais Aliou Cissé moom daal dina assumé lépp ne moom mooy seul coupable maanaam lu ji njaag moom entraîneur bi moom mooy njaag les conséquences aussi ci wàllu psychologie ci éliminatoire pré élimination précoce maanaam bu ñu teelee éliminer Sénégal ci premier tour bi lakk la mën a jur rek journal bi de l'Observateur daal dina ci ñëwaat ñëw également ci njombe li nga xamante ne ma nga xew fële ca Saint-Louis muy koo xamante ne rek ngir fay rakkom bu jigéen dafa jël kon lu toll ci juróom-ñeenti. Euh, jam-jami paaka daal di koy def rek ki nga xamante ni kon moom la doon xeexal. ñu jàll ci enquête. coupe du monde les kon vaincus par les Pays-Bas touchés pas coulés bu ñu sukkandikoo ci journal bi euh, bit baa ngi nii surtout ñaareel bi moom mi nga xamante ne mooy attaquant néerlandais bi dugal na mel ni moom këpp ci suuf Aliou Cissé entraîneur des lions nee na kon ñu gën a efficace gën a agressif bu ñu bëggee kon joyanti lu ni mel et tamit les bons et mauvais points li nga xamante ni mooy jàngatu match bi am na benn entraîneur Moussa Diatta moom it am na jàngat bu mu ci def ca jamono jooj ba léegi ci coupe du monde bi CNRA di conseil national de régulation de l'audiovisuel kon la mu doon wax rek am na ko passe à l'attaque maanaam couper signalu waa E-Media ca jamono jooju nag CDEPS mi nga xamante ni kon moom moo ëmb patron de presse yi ñi ngi ñaawlu dogal bi nga xamante kon euh, régulateur bi daal dina koy jël ca jamono jooju gis nga ko vote budget Mame Mbaye Niang wax nañ ci ak ANSD ci yi ni ni ni souffrir fii ci Sénégal mm-hmm. marche ba tey ci le soleil nga ko rek ni moom la gardien bi génn ba gars yi nax ko bal baa ngi nii ci biir kaa yi soleil nag daal di ñëwaat ne maanaam daal accro d'entrée la ko daal di tuddee rek pour les ak tamit li nga xamante yoon moom mooy rek euh, benn rencontre boo xam ne c'était très physique fermé l'équipe nationale nag ci fin ba la daal di rek bàyyi loxo ba gars yi mujj leen a nax dugal ñaari biit les joueurs entraîneurs ku ci nekk daal déjà yaa ngi si projeté wu ci match bi nga xamante ne aljuma incha allah am su diggante ak Qatar groupe B bi Angleterre moom démb duma na duma yu métti waa Iran 6-2 les pays de Galles ak États-Unis moom dañoo mujj sax neutraliser ku ci nekk benn bil benn bit nga daal di dugal et puis ñëwaat ci yi jëm kon ci marathon budgétaire bi ci assemblée nationale. Mmh, jàll ci libération Chérif muy lu doy waar loo xamante ni doon ci ñëwaat wante ñëwaat ba léegi rek ci équipe nationale bu Sénégal ak li nga xamante ni mooy les lions touchés mais pas coulés comme ni ko rek euh, enquête daal di waxee Aliou Cissé moom jàpp ni gis nga compétition foofu rek kon boobu ñàkkee premier match bi à la coulée à ñaareelu match bi moom mën nañ ko jàppee final donc final coupe du monde daal ci Sénégal mën nañ jàpp ne àjjuma la seen diggante ak euh, Qatar Nampalys Mendy moom nee na ñaari match moo ci des ñaari match yëpp ay final la waaye nag am na njàqare ci infirmerie bi ndax ki nga xamante ni kon mooy Cheikhou Kouyaté ak Abdou Diallo démb daal dañoo am blessure ba gis nañu ñu génn ñu daal di leen di remplacer ñëwaat ci li nga xamante ni journal bi nag nee na daal ci autoroute à péage bi jëm ci aéroport Diass muy ñu ay tànk yoo xam ne daal dañu gis ay tànk doomu aadama mooy découverte troublante alxames bi passé ci péage bi boo xoolee am na ci benn tànk moom dañ koo dagg dal di koy muul ci benn chasset bu bleu ca Toglu diggante Toglu ak Sicad aljuma également ca Diash ay xaj ci boppam ñoo daal di sulli ay yeneen i tànk doomu aadama yoo xam daal enquête bi ñu ngi koy mën a pour xool tànk yi nit yooyu lu ko waral ban faat leen ñu tasaare leen. ëpp na waar ñu dem ca tribune. tribune moom dafa mel ni waaw ñoom ñëwoon ci match bi ci neneen lañ ci ñëwee ak ki nga xamante ne mooy Karim démb gis nañ ko également ca stade ba muy selfie ak yu ni mel ay nee na ay nit yoo xam daal ay médiateur lañ di dox tànki jàmm ak yu ni mel ñi ngi liggéey ngir Karim Wade ak Macky Sall gën a jegeloo am na tamit intertraction pour que moom mu daal di accepter fekk si Macky Sall ndax sax moom Karim Wade du daal di dellusiwaat muy retour négocier buñ sukkandiku ci journal bi daal di ñëwaat également ci gerte gi nga xamante daal béykat yi lànk la ne ni ko état bi fixé maanaam rek deux cent soixante quinze francs duñ ko jëfee mbiram Pape Alé Niang gars yi liñ bëgg ruut surtout waa CAP mooy ñu daal di rek internationaliser lu ni mel ak tamit deuxième plan d'action bi am na tamit gis nga ko rek benn accident boo xamante euh, am na ci yoon bi loo toll ci deux décès par yoo xamante waa ANASER agence bi ñu dénkoon sécurité routière ñoom ñoo def boobee bilan. Mm-hmm. Walf Quotidien lu mu xëyee. cruel scénario pour les lions champions d'Afrique muy lions yi nga xamante gis nga ko démb Pays-Bas ñoom ñoo leen dóor muy loo xamante daal indi na tiitaange ak euh, métit ci réew mi Aliou Cissé moom nee moom mooy coupable pourquoi fo on faussé moom mi nga xamante ni kon moom ne ne mooy el tactico daal plan yi nasoon dafa mel ni ñee noccal ci noonu ko ñoom ñi nga xam ne waa Pays-Bas blessure musculaire nag bu Abdou Diallo ak ki nga xamante kon moom mooy Cheikhou Kouyaté mën naa indi jafe-jafe ministre du commerce moom it seq na waxtaan ak ñi nga xamante mooy économie solidaire di Victorine Ndeye mhm, ñu dem ci les échos les échos ba léegi la gis nga ko mooy les lions héroïques tombent à la fin du match Sabali gis nga ko au four et au moulin daanaka daal moom moo doon def lépp moom mi nga xamante rek moom mooy sëñ Sabali a am taxawaay ci match boobu Kouyaté tamit guerrier la woon moom mi nga xamante ne mooy Cheikhou Koulibaly Impérial Ismaïla Sarr ak Krépin Diatta moom danoo transparent sëñ Edouard moom it euh, xawoon naa sàggan ci match bi Macky Sall ak première dame bi moom nee na ñoom it ña nga woon ca vestiaire ya ngi rek dëfal gars ginnaaw kon bi nga xamante ni am na défaite Karim Wade ci jamono jooju moom gis nga ko rek tient parole maanaam la def na ko dem ci stade ba jàppale ji gaynde yi doon fa selfie yu ni mel Van moom gis nga ko nee na c'était difficile pour nous yombul woon ci ñi nga xamante ni rek kon ñoom ñooy gars yi muy ay témoignages yoo xamante ni jour yi nañ ko ak après match bi Euh, Air Sénégal ba léegi rek moom it dafa mel ni del baa ngay gën a yàqu ndax am na ci passager yoo xamante ba léegi ñi ngi mer am na vol bu waroon a dem fële nga xamante ni moom moo ca New York programmé nañ li nga xamante moom mooy match bi jàpp ni moom mooy principal coupable Kalidou Koulibaly moom nee na Qatar ak Équateur deux finales à disputer euh, puis tamit grosse inquiétude jëm kon ci li nga xamante ne rek mooy yenn ci ay joueurs yi rawatina milieu terrain bi Abdou Diallo ngi nii ak Cheikhou Kouyaté ñoom danoo ci jamono jooju gis nga ko mauvais signal CNRA coupé na signalu ITV CDEPS moom nee na acte bu grave la et puis amul benn droit ngir daal def lu ni mel ci jamono jooju prison yi Sénégal yi am na ay jafe-jafe yoo xamante ñi ngi en détention yi jamono jooju suñ beneen naataango boo xamante ne mi ngi ci détention di Pape Alé Niang ñii di waa CAP moom li ñu bëgg rek mooy dem ci représentation diplomatique maanaam ambassade yi ngir ñaawlu fa jàpp ngeen ko jàpp tëj ko ci kaso ba ci Sébikotane. Mm, laasul mu xëyee Chérif. muy les lions de nos tarxis trébuche d'entrée ah muy gis nga ko rek diggante Chef Kouyaté ak Doyong mi nga xamante démb xaw nañoo sonal Aliou Cissé moom gis nga ko rek am na réaction boo xam def na ko ci comme ki nga xamante tamit moom mooy Kalidou Koulibaly. Mm-hmm, Vox ah, moom nag lions yi lan ne rek bouffée d'entrée à la sauce orange muy jëm kon ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa loo xamante nag jëm na rek ci réalité sans Sadio Mané dafa ñu daal démb buñ sukkandikoo ci Vox Populi absence su Sadio Mané sentir nañ ko bu baax a baax et puis tamit Karim Wade ngi nii moom ah ca tribune moom it dafa woon jiwoon benn match di xam naa doon natt boppam ci wàllu bàyyi rek yu ni mel. mu dem ci source A. waaw défaite amère maanaam daal métti na trop défaite bi nga xamante ne am nañ ko démb face xamante ni méfiante qui jouait arrêté léegi yoon nag xamante ne réali manqué na daal li nga xamante ne moom mooy réalisme et puis tamit am na ci ñoo xamante ne seen taxawaay journal bi jàpp na daal doy na waar et puis tamit rek Macky Sall bëggutoon sax gis makki saal moo tax moom mu jege ji ñi la nga xamante ni kon ñoom ñooy supporter ak yu nu mel demut ca loge officielle yi ngir rencontrer les autorités sénégalaises moom nag ci membre comité d'organisation bu coupe du monde bi la bokk bu ñu sukkandikoo ci source a mhm, ñu jàll ci le témoin Van Gaal mooy entraîneur bu Hollande moom nag gis nga ko jox na leçon kii di Aliou ci football dem bu ñu sukkandikoo ci naataango yi ñëwaat ci li nga xamante rek gis nga ko rek mooy vieux ba coach moom neen beaucoup de choses à parfaire loo xamante ni war nañ koo joyantiwaat suñu bëggee génn ci poule bi Aminata Touré tamit dafa mel ni mu ngi joxe conversation jëm kon ci wàllu politique ba gars yi doon taxawoo démb ca stade ba. Mm-hmm, ca stade ba Sud Quotidien. chute d'entrée Aliou Cissé réaction également ak yeneen propos propos yoo xamante gis nañ ko ci jour ñu daal di koy réagir record. ñu kon ñëw ci piège bi nga xamante ni kon ñoom les orange daal nañ koy piéger équipe nationale bu Sénégal Diallo ak Kouyaté nag gis nga ko out contre le Qatar c'est une mauvaise nouvelle. Mm. et puis la France moo remet son titre ñoom tey la football dina lijjanti seen kaa ci kanam Kalidou Koulibaly ngi nii moom nee na nan dundee yaakaar ah, euh, bu yoon jeexul waaxu du jeex am na déception boo xam ne gis nañ ko ci entraîneur bii mi nga xamante moom mooy ba léegi rek c'est am ci match bi nee na benn coupable moo am moom mooy bi ginnaaw nan euh, Angleterre moom démb gis nga ko rek xaw nañoo duma duma yu métti ñii di waa ñi nga xamante ni waa Iran et France tey ci ngoon lay football seen diggante ak Australie. Mhm, stade ak Gaynde. waaw ah, ba léegi rek écœuré d'entrée muy les Lions li ko waral nag mooy kàlla di Edouard Mendy mi nga xamante ni décevant am nañ mbetteel trop Gana Gueye présent et puis tamit Crépin eh, Diatta ak Ismaïla Sarr trop timide dans l'animation du jeu ñoom ñi nga xamante ni en l'absence de Sadio Mané yaakaaroon na ni kon dina am loo xamante ni ci wàllu différence dina leen ko def tamit il y a deux finales à disputer buñ sukkandikoo ci capitaine de l'équipe nationale kii di Kalidou Koulibaly France Argentine kenn pour bien euh, démarrer ñoom ñaar tey leen football Argentine sax ci 10 la ci suba gi Lionel Messi ñoom Arabie Saoudite la ñuy ak fekki nañ Ballo Touré mel ni Sénégal moom coupe du monde bi tamit cat dugg na leen jëm kon ci ay euh, blessure on a marqué mm. d'efficacité bu sukkandikoo ci sélectionneur bi Aliou Cissé. Mm, ñu tëjee ak sunu lamb ba léegi rek gis nga ko Bécaye moom met en garde Ama Baldé il ne doit pas tomber ñoom ñoo war a bëre wante jamono ji moom gars làmb ji xam naa ñu ngi ci coupe du monde.